Gandiaga Tidiane Faye 2 Gandiaga Tidiane Faye ayca Papa Ndiaye Thank you. Bougane Faye moom daal un Giga un Giga moo fa tey un Giga c'est te te te te un Giga na sol ko ak Tidiane Faye a ngi dóor un Giga jàppante la bëgg Tidiane Faye di ko ko aaye Giga moo féete ndeyjoor mooy Ndamali un Giga jamaïcain borom Douma borom Turquie noo gisee combat bi. da ngaa dem. sa sëriñ nga ñëw indil naa la sëriñ. ñoom nag jox nañ ñëpp ay oh. oh. naan si taay na ko gaa ngay wut nombo wala ma ngay wut ayo siga mi ba maar Diop petit production moo fi woote seen combat bi metti na mais dara xewam ma yi kenn sibile Ziga Tidiane Faye pétri de du filard d'or waaw avertissement pour Kirle raxasal leen ko protestant bi bara ma ko sonal day xejam waaw du neex a sol on ziga on ziga Papa Ndiaye bokk ay cousin lañ maanaam waaw waaw waaw Siga day am avertissement génn ba la arbitre dafa mu dem yóbbu protège temps ba ñu raxas ko mu jël fa temps raxasoo suuf sa ko ñëwaat Siga Tidiane Faye 2 Tidiane Faye 2 moo dóor noonu Tidiane Faye 2 dóor Tidiane Faye 2 ma dóor Osika rocceeku na ñu ngi leew too ah Osika dóor na songoo nanu Journée Petit Production Osika rëpp na rëpp na ñu nga ca suuf jóg nanu jóg ñaari mbëri jógaat nanu Osika Tidiane ñaari mbëri songoo nanu Osika moo dóor noonu Tidiane Faye 2 kor na ko Tidiane Faye 2 kor na ko ñu ngi dégloo te ñoom ñaar Osika Tidiane Faye 2 i dóor Tidiane Faye 2 siggi na Tidiane Faye 2 moo ko kor Tidiane ñaari mbëri songoo nañu ña nga jàppante un siga rëpp na un siga rëpp ca suuf ñoom ñaar ña nga ca suuf ña nga ca suuf un siga jóg ñaari bët oomam Tidiane Faye 2 un siga un siga Tidiane Faye ñu tollu Tidiane jóg na un cigare na Tidiane Faye de jóg na un cigare ëpp na ñoom ñaar ñëpp jóg nañu ñoom ñaar ñëpp jóg nañu deme nañu wet deme nañu wet journée Petit Production ba Iba Mar un cigare Tidiane Faye ñaari mbëri songoo nañu un cigare jàpp na ngemb Tidiane Faye de kor na ko un la doon wut Tidiane Faye xañ ko ko waaye un giga ma nga woon ca Senghor ya bàyyi na fa mu jàppoon Don Tidiane Faye de loxo càmmoñam mu am ngemb Tidiane Faye de un giga ndeysaan ña nga jàppante Tidiane Faye de un giga Tidiane Faye de daf ko bëgg a yëkkati un giga bañ na un giga bañ na un giga bañ na un giga bañ na ah ah bëtt na ko combat ba jeex na bëtt na ko Tidiane Faye 2 moo ko wër ndombo takk daan na ko jeex na dafa rëpp Ziga def na gàtt àpp combat ba jeex na Tidiane Faye